parce que loolu war moo waroon doon sax suñu ñaareelu question peut-être mais. yow je pense qu'il a attendu même mais ci biir discours am waxaat na ko waaw. alors donc donc lii li si des mooy toutes les grandes guerres se se se se terminent autour d'une table. d'une table oui. pour cent yi nga xam ne xeex la woon ñëpp entreprendre ko. Mm-hmm. dans l'opposition les personnalités individuelles. les appels des partenaire extérieurs ñoom ñëpp li nga xam ne doon nañu ko ñaan président Macky Sall léegi nangul na leen ko li ci des nag mooy toog ñu waxtaan guerre yi gën a métti 39 45 sax c'est autour de la table terminée. Mm-hmm. xeex yi gën a métti autour de la table terminée donc je demande à tout le monde tout le monde y inclut Ousmane Sonko parce que tey jii lii nga xam ne moom moo ci des. nekkatul ay problème mu euh, Macky problème yu justice la te xam nañ ne justice mun na dogal ba noppi président ñëw moom tamit ah ci li nga xam ne moom la ko pouvoir may mu joxe ay prérogative am ba jàmm mun a am ci réew li ñu ñaan mooy na jàmm am mhm. bon damay ñaan d'abord euh, président Ousmane Sonko bu mu déglu ñi nga xam ne dañ ko topp te jëmmam moo tax ñu fay fa fal fal leen am na ay opportunité politique yoo xam ne topp ñu lu dul ci ginnaaw nit pour xamb ko ci loo xam ne xëy na du jëriñu réew mi te du jàmm réew mi donc maa ngi koy ñaan moom tamit mu def une ouverture parce que li nga xam ne moom la dese yëpp procès bii ñuy wax mais c'est possible c'est bien possible parce que déjà euh, moom ci boppam dañu ne il va se constituer prisonnier mais jarul muy constituer prisonnier na bind au procureur ne ko je suis déjà prisonnier ñu tijjiwaat procès bi procé procès bi mm-hmm. pourquoi pas c'est possible c'est une autre donc je pense que léegi nañu ñaan réew mi dellu ci jàmm cinquante pour cent bataille yëpp fi mu nekk defe naa peuple bi gagné na ko président dellu na ginnaaw yaatal na ubbil na tamit te soo déggee ci début discours am li mu njëkk a wax mooy lan je tends la mais à tout le monde donc moom ci boppam dama koy ñaan dialogue bi nga xam ne woote woon na ko te am ñoo xam ne dañu toog ne ah balaa ñuy dem dialogue mu prononcé wu ci troisième mandat je pense que c'est le moment aussi d'appeler à un second dialogue ñi nga xam ne toogoon nañu à cause de la candidature ñëw ñoom ñëpp autour de la table y inclut le problème de Ousmane Sonko je pense que suñ ko defee aux horizons deux mille vingt quatre jàmm dina gën a xam ci réew mi te moom tamit sa grandeur mooy c' est le premier président de la république bu nar a organiser des élections te demul